lamb waa Sow ñun daanaanu lamb Andrew ah, ah, Trump. seen goro soog wala boog Frank bi noonu xale yi nga Papa Sow ku ci nekk avenir la nga ah Balla Diouf la nouvelle génération waa lii mooy àddina Balla Diouf xam na ne goro soog goro soog champion baa ngi noonu de goro mu naqari daan maa ngi noonu Léegi noonu moom ngeen seen noonu muy dugg si moom Tarkalla yéen Kader ndaanaan yéen Kader am na Moustapha si tey noonu ginnaaw bu Papa Sow dugg see même pas 10 minutes ñu gis si tey egg si ñoom Abou Ndiassou ñoo ko dar ñom Balla gay siñu ñoko dar ñom Mame la mi na ko dar ci te nonu ta ay lunette la sol mom sitte ci te nonu am din ya ku nek rek nga xeeboon ci mbaru lan la ñu nan ci dem fenn waye gem gemam pas-pasam ak fitam ak man bërëm tay moko ko li tay moko may mu egg si takteer yu am din xolam lu ko génnee néna la xalé bi nu mu toll jëmm ji nu mu nee naa la fit bi nga xale bee mën bëre tarki baa ngoog si te am din Moustapha gis mu génne tey tey ay ay noir fumé la sol moom si te nee naa la xale bi bu muy dugg si làmb boobu dara doonul dara waaye gëm boppam gëm boppam fulla bu mu am ak fulla bu mu am si làmb tey moo ko yóbbee lii mi bu ñu mi ngi ànd ak ñoom Bébé Balla am din am din ci taalibe moom moo Hallelujah. lamb nee la ñëpp dañ ko xeeboon bu muy dugg si lamb ñëpp dañ doon wax ni kii fan la jëm kii dara tamit bu muy lamb am din la ji dara la fit bi ak fayda bi moo ko may tey lii euh, kii mooy Siteu waxoon naa ne léegi su jógee Jang Mbaaw dañuy jóg Fass Mbaaw dañuy jóg pati Mbaaw dañuy jóg waa Caaray dañuy jóg dañ koy topp seetaan moo Santa Ñing seetaan aussi tamit moo xale ba mooy Seex Ngiraan di combat yu métti nga xam ne si tamit bi muy bëre xale bi nga xam mooy sos 3 Papa moo bëre grand combat bi te booba si tamit mi ngi bëre ci combat préliminaire yi tey yàlla dogal làmb dem ba doxo doxo dox ba daja leen moo tax làmb du ak maas dabante la de toute façon di nga gis combat bu neex mais lenn laa lay xamal ci combat bi mooy que Papa moo dàq moo dàq xeex. moo dàq xeex Siteu parce que façon xeex yi ñoo bokk Siteu dafa góose ba mu ëpp te pourtant mën nañoo xeex sax Siteu dóor ko mu daanu mais teewul papa moo dàq. mais si dama gis combat mujj ba kaw. mais daa gën a jot cër cëri pa cëri Siteu moo gën a jot cëri Papa Sow ci xeeti bëre na parce que boo dee xool Papa Sow defkat la mais Siteu dindi la dàq ni def mën naa contre kele daan la mais bu dee ci kele bu ma am da xar wala mu kott la wala mu wéeru la mais Papa Sow am na mboot am na nooju am na woyale xeeti bëre ndoxtu yu ndoxtu bëre yu bëri mi ngi si kawam. lépp lu mais làmb nag du ko dàq bëre yaay daan du ko dàq xeex yaay daan parce que làmb léegi. logique quoi. léegi mystique bi moo ci bari ba daanaka léegi dangay ngay boo paree da ngay réer mais de toute façon di nga gis combat bu neex ñoom ñaar. balaa ngay mën a wax kuy daan bis ba jot euh, ba lendemain ba nga mën wax kuy daan. waaw kuy daan moom xam nga moom loolu dernier du show la suñ borom a ko yor mais de toute façon daal Papa mooy favori bi parce que boo dee xool it Papa Sow tàkkusaan yi mu am Siteu amagu ko am na fi tàkkusaanam ak Balla Gaye am na fi tàkkusaanam ak Lac de Guiers am na fi tàkkusaanam ak Modou Lo donte combat yooyu sax da koo perte mu am fi mook Baye ma Njoon xam nga am fi mook Boy Sey am fi mook Zos am fi mook Bac Seras am fi mook Santa Ñing am fi moom ak daanaan yu bëree bëree bëree bëri kon yàgg na si làmb. nekkatul mais ma jaaxal ma tax mooy Papa Sow dafa taxaw ni Siteu euh, mayoo ma dem euh, Siteu xamal ni ko bu mayee di am yaa war maye euh, ndax yaa ma jur si làmb te yaay magu làmb kon ma dégg mu mel ne ñaari mbir yi commencé nañu xas-xas loolu te dara xew. non bu dee làmb xale moom Siteu war a dem bu dee làmb xale Siteu war a dem mais bu dee làmb mag Papa moo war a dem mais lu toute façon ay mag ak xale yooyu yëpp kenn ku nekk concerné loolu lijjanti ko. parce que papa waaru boppam lay bay Siteu waaru boppam lay bay mais combat la boo xamante bi ni dina bàyyiwaat papa Sow ci làmb combat bu koy bàyyiwaat ci làmb la. wala mu génne ci làmb bu ko Siteu daanee mën na ko bañ a génnee ci làmb mais fa mu koy yóbbu du ko neex da koy abale ay ñoom Diène Kairé da koy abale ay ñoom Modou Anta da koy abale ay ñoom Moussa Ndoye mais aussi papa Franc day dem. daa raak xool Franc daa raak dañoo raakaaj waa parcelle lañ. ñeene dañ leen jox repasse waaye ñu fa mel ne bële lañ leen jox ñoom Franc ñoom Dame Sène yi. ñoom est-ce joxuñu leen bësi bësi. xam naa ne bësi lañu. wax nga dëgg koy bay moom lañ leen jox moo tax ñu rakkaaju. moo tax dañuy gis combat bu a neex. non combat bu neex. xaw bi amul calcul. bu amul calcul dina am xeex dina am bari xaw ma bu amee. calcul waaw combat fa la ñu xeex. mën na ñàkk am jaay joxol jóob bu ci amee. xoolal ma affaire yi ba doole ya xoolal booy sànni ndox c'est pas celui loolu rafetul. lamb lii rafetu si. loolu rafetu ji maa mu doon. soxlawuñ lii. xoolal si nu mu duggee. Hmm. si loolu. na ànd yar ak taali bi rek parce que tamit supporter si tey bu ñu gaañee Papa Sow si te dootul préparer komba supporter yi Papa yi bu ñu gaañee si te aussi tamit waa Papa Sow yi dootuñu préparer combat de toute façon kenn ku nekk sa morom mooy sa trésor morom nañ ko naajsal mu naaj rek ayca. maa lu mu la wax si làmb lu ne aw ko tere takk sa ndigg nar ba xam làmb macha allah di si bay waaram di si def liggéey bu am solo bu leen fàtte ni lu yàggul dara la ngi tuddee drapeau foofu sa arène national mu dem ànd fa ak ay mbokkam wone fa lu rafet wone fa ngor wone fa fulla wone fa fayda Modou Anta maa ngi lay jaajëfal di bu def ak wér sama doomu ndey la waaye am di Moustapha gis nga stade Iba Mar Diop commencé na yëngu te dara xewagul Siteu waxagul Papa Sow waxagul waaye supporter yi ngi yëngu supporter yi kontaan ñoo ngi mel ne ay xar yu ñu jox bele cay ñuy Tarkinda waaye waa Parcelles ñu ngi ruube Franc bàkku na léegi ànd ak Dame Sène Pape Abdou Fall ngay seen noonu l'homme des grands événements borom bis bee ñu noonu kookoo yaatal presse bi cay làmb neex. ñi muy àndal ñëpp mën fecc waaye Papa Sow tamit ñi muy àndal ñëpp mën fecc nee naa daal lamb ji dana bëri spectacle spectacle moom dana am si lamb ji donc am na njëriñ ak yi gi Thiès fu jëm jox ko boog cey <laughs> Pape Abdou Fall dem na dem na mu ngi bañantu xale bee simba xale bee ngi fecc feccu am din feccu gaynde la waaw waaw doon ko tastamin tey lii lamba gi ay lamba neex mbokk yi àndoon naa tey Dakar lamba ngoog loolu neex rek laa bëgg loolu bëgg rek laa bëgg man ak yéen lamba am dinaa fa dem jëlal leen image reporter leen indil leen ko ñu bëgg man ak yéen Abou Ndiassé noonu Abou Ndiassé noonu deret bi la deretu càmmakan bi yëngu na waaw tarkindaa bee ngi noonu gisuma ma daa mel ni Mama Lamine tey ñëwul aboo ngi noonu am din ki tamit xelal la les espoirs u am la am place si lamba am cër si lamba su foowulee su gëmee boppam fu si timi egg tey moom dañ fa egg ndax bu si dugg si lamba moom mii bu muy si lamba moo ko ëpp moom Abou euh, la si bu muy si lamba lu tuuti la waaye gëm boppam fulam ak faydam ak diitam tey moo ko yóbbee fii tey moom si te talibam bee noonu tarkindaa bee ngi noonu na ñëw Siteu tàllal na loxo bi nee na gars yi toog leen ngeen bàyyi maag ma jàkkaarloo gi jàkkaarloog ndënd yi bëggal samay supporter waaye yi Siteu ngi wax ak ñoom Siteu ngi wax ak géwél yi Siteu ngi wax ak géwél Amdi Moustapha euh, waa Cité sa diaspora maa ngi stade Iba Mar Diop Siteu Papa Sow ñoo fi jàkkaarloo tey Papa Abdou Fall moo ko tëgg bu nekk combat espoir si ñaari mbër yi combat de déclenchement ndax ñaari mbër yëpp ku nekk da nga defet waaye ñoom ñaar ñëpp ku nekk bëgg na yéegaat te Papa Sow ak Papa Sow Ama Baldé nga a daan waaye Siteu mi Sa Thiès nga mujj a daan jee ngi lamba ba noonu si tegi dem mu ngi fecc si te waa sa sa diaspora maa ngi leen di nuyu di nuyu suñu papa si Ahmed Tidiane Cissé espoir waalo kooku la xale yi bëgg kooku la waa Dagana bëgg jamono waa Dagana nga tànn moom si Ahmed Tidiane Cissé mu war a ñëw war a leeral yoon bi eh, ginnaaw bu ko fa nekkoon ki toog ay at toog fa ay at amuñu changement woo ndaw ñee taxaw porte ouverte fas yéene ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Cissé waalo boobu sëriñ bi daal kaltoom man sa doom maa ngi lay jaajëfal di la kontaanee di wax Mouhamadou Makhtar Cissé ni nga def na su ko ñëwee dina jàmbal na ne loolu la gën lu tëgg waaye si te Tarkindaa bee ngi noonu général Tarkindaa yee ngi noonu Talibe Bamba bee ngi noonu Cissé ngi noonu vainqueur vainqueur de Zarko ngi noonu vainqueur de Baye Mandione vainqueur vainqueur de vainqueur de Zarko ngi noonu moom Siteu kii moo tan Pape Modou Lo Siteu ngi noonu vainqueur de Siteu ngi noonu yaakaaru jàmm gën a ngi noonu Siteu ngi noonu mu ngi wax ak Gaye Lô moom Siteu Siteu jëlal ma Siteu ma xale bi lu muy fecc xoolal xale bi fu ak fu mu ko teeralee fu mu ko teeralee gën a neex gars yi